bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa radiallahu taala an saadatina suufiyati atibai alqulubi wa usaati alafida ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi salaay sallam di ñaan yàlla mu gërëmal ñu sunu sang yi te mooy nit yàlla yi suufiyanke yu mag yi eh, ak sunu magu réew mi Euh, ñoom yi nga xam ne ñooy defarkatu xol yi di yarkatu jaam yi yéege leen doxloo leen ñu jéggil leen àdduna ñu dund fu gën a yaatu te mooy yàlla subhaanahu wa taala euh, tey nag ci àjjuma ji gannaaw nuyoo ak ziyaar ñu bëgg a taxaw sunu ñaareelu taxawaay te moo di lii ñu tàmbali woon mu aju ci li ñu tuddee tawhiinul aghyar fil fikril wahaabi maanaam xalaatu wahabisme bi nga xam ne moom moo lalu ci e, soofantal ak weddi ak bañ ak noonoo ak beddi képp ku bokkul ci yow loolu nga xam ne dafa tàmbali bu yàgg yàgg ci seen kilifa yu mag ya mën nañ ci cité Muhammad ibnu Abdil mi nga xam ne buñ ne alwahabiyatu ci moom lañ leen askan boo demee ci téere bu ñu assuxubul waabila ala daraix alxanaabila boroom xam-xam ba ko bind di tarjamaal bàyyi Muhammad ibnu Abdil Wahab mi wax na ca suuf lenn loo xam ne nettali nañ ko te moom moo gën a jege jamono jooja ngir mën na nañu nettali la ca xew mu wax ne Muhammad ibn Abdul Wahab képp goo xam ne danga koo déranger wuuteeg moom sonal ko bëgg yàq ab yoonam wala ab wooteem benn mu ray la jëxëran ñëpp di gis ci xeex xeex goo xam ne dañ koy layal ne Eh, ñoom diw sàngam dañuy bokkaale dañuy def shirk dañuy jaamu keneen ku dul yàlla pour jaare ca man leen a rey loolu nag rey nañ ci ay jullit yu bare bari ci layub ñoom dañoo dem ci ab garab di di fa ñaan te loolu ñaan leneen lu dul yàlla la ñu daal leen di faagaagal rey leen rey ay junni junni nit ñooñ ñooy marja yu mag yi ñooñu rey nit ñi noonu euh, mu ne su la mënta rey jëxran ñëpp di fekke comme lu mel nii dafay yónni ku la rey dafay yónni ku la rey moo xam rey ba nag dafay def poson ci looy lekk nga jaare ci faatu wala day xiirtal ab dof ci sa kaw nga xam ne bu la reyee dañ naan dof baa ko rey dara ju dikk loolu lay jëflante moom Muhammad ibn Abdul Wahab ci képp koo xam ne dérangé nga ko ci yoon wi mu jaar e, la ca des te mooy rey ak xeex yu bari ya faagaagal ay junni junni nit ñoo xam ne ay jullit lañ même bu ñu juumee ci lenn loo xam ne e, def nañ ko ci seen wàllu diine e, mu ray leen rey gëm leen rey moo gën a rëy foofu njuumte yi ñu def ñoom rey goo xam ne ci tooñ rek la la la wax marajee yooyu ñoom ñoo yu mag yooyu ñoom ñoo def lii caay caay gii waaw boroom soxobul waa bi da nag loolu la nettali ak leneen mu ne loolu sax jot na am jot na xiirtal nit ci kaw ku ko déranger te ka ko déranger kat magam la de mu xiirtal ku ko rey ba ci mag jum bokkal ndey ak baay waaw kooku mooy marja bi gën a mag e, ci wahabiya moom moo nekkee woon caay-caay googu e, loolu nag bu fekkee ne kilifa gaa ka ci nekkee bu fa jugee faaw ñeneen ñi ci loolu la ñuy nekk e, dafa am jamono yoo xam nag laajul nga rey nit wala ngay nga koy empoisonné wala dara li mu laaj mooy loo mën a wax loo xam ne moog rey ñoo tolloo maanaam fexe ba nit ki eh, nga soofantal ko ci kanamu nit ñi wala nga fexe ba am ñu ko weddi am ñu ko bañ wala nga fexe ba kenn bañ koo gëmati da ngay jiim loolu loolu nag ci xeeti rey la bokk ci xeeti rey la bokk loolu lépp nag boo ko boolee ak weddi nit ñi ak di soofantal boroom xam-xam yi ak di ñi ñenn ñi ak di saaga ñenn ñi la nga xam ne moom la Mor gay defoon ca groupe booba eh, ay saaga yu bon jëmee ko ci Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yooyu yëpp mooy tawhiinul axyaar fil fikril wahaabi tawhiinul axyaar fil fikril wahaabi loolu nitam moo nekk ci taqdiisul ashxaaf te moo di ne képp ku ñu réyal rekk ci tasawuf nga fexe ko daaneel wax ne jaamukatu leneen la woon lu dul yàlla amul tawxid bu wér ajuwul ci ahlu sunnati jamaa toppul yoonu salaf dafa feddi ab géew ak yu mel noonu ci wax yu soof yooyu yëpp moom moo tudd tawhiinul agyaar fi fikril wahaabi e, mbind mii nag nga xam ne sunu wax ji démb ci la aju mbind moomu ci tawhiinul axyaar fil fikril wahaabi lay dugg ñu war cee taxaw nag tey sunu ñaareelu taxawaay bi iznillah di ñaan yàlla mu def sababu jëf ji mu nekk